sëñ Mouhamadou Lamine nee na bi nga xamee ne mbirum Serigne Touba nag daa gën a yokk ginnaaw tukkib géej gi mbirum dongo yi tamit kenn mënta misaal tolluwaay bi loolu nag dafa yëngalaat xooliwaay iñaan yi ñoom ñu daldi di delo delo bunte boy boy ba fasiyene yéene rek ndox ay jéego ngir jaxase serigne touba ak touba bi ba mbir ma sax mujju ci ñu yabal ab armée ci daru marnan ci kër serigne touba serigne mot lamine neena li waralon armée bobu ñew daarul marnan rek moy jaraaf gi nga xamne mo togalon touba bi ci gox bobu serigne touba nekkon da wax touba bi ne len ahmadu bamba de wajna bu wut ay arme te jek na ngir dal sen kaw waye man de bu ngeen ay dina jëflanteeg ak mom lo ne di ngeen ci tek seen bët bi waji ji waxee tuba bi ñoom ñu dëppoo ak mom ci loolu wutal ko lim soxla te dañ ko def ci kaw gi ni rek waaye ci dëgg-dëgg sax taxul ñu gëm li leen waji wax ci sëriñ bi ci nonu nak ci lañu convoqué mbooleem buur yi fi nekkoon ak bawal ak ngir ñu and ak waa dem daaru nanan waaye bur bi nga xam nak mo nekkon nekkoon buurub di ku nando fen juuf mom dafa wuté won ak ñoom xalaat ci li ñu bëggoon def te it moom moo leen gënoon a rafet njortu gën leen a rafet lum fas ci Serigne Touba amoon na sax yeneen buur yoo xam ne seeni xool Serigne Touba la àndaloon te buñ gisoon lu ko jar dëgg-dëgg moom la ñuy àndal waaye duñu ànd ak tubaab yi sëñ Mouhamadou Lamine nee na ñi doon gëstu ngànnaay yi tamit biñ ñëwee ci kër sëriñ bi bañ xoolee gisuñu dara ci lañ leen waxoon taalibe yu ñu gis daarul mën naa nit amul kenn ci ñoom koo xam ne am na jeexiti mer wala kanam gu ñëgg lañ fa gis foofee ci daaru marnaan daal mooy ak dal gu yéeme ci taalibe yi ak kanam yu bell nekk ci mbégte ñoo xam ne sax dañoo mel na ñu nekk ci feet ngir seen col yu rafet ñu daal di xam ne nag ki leen joxoon xibaar bi lim leen wax dara amu ci buur ya mu ñoom ñëpp ñu am ci kersa lool ñu daal di wàññeeku ànd ak rëccu lool yàlla na leen yàlla fay kenn ku ne ci ñoom la doonoon yéeneem Serigne Touba moom mu ngi ànd ak xol bu yaatu ànd akuk dal ak xel mu dal. di leen dalal naan leen na seen xol sedd te ngeen xam ne dara du xew xat sax du fi damm sëñ Mouhamad Lamine nee na ca jamono yooya fekkoon na sëriñ Touba génne woon dog boo xam ne moo ko taalif daal di wax ne dog wii de bu armée bi ñëwee bu ngeen ko jàngee dara du xew mu ne dog woowu nag ak xasida la gu seexul xadim tënkee ñaari turu yàlla yi di rahmaanu ak rahim muy xasida ak rabbi bi maa yashrahu al adhana qad fajaa bi jaahi afdali man lillahi qad sëriñ Mouhamad Lamine Diop nee na am na kenn ci mbokk yi ku ñuy wax Mouhamad ibnu Ahmad ibnu Ali al bii ñu gën koo xam ci Mouhamad Touba Mouhamad tuuba moomu nee na nettali na ma ne bi sëriñ Touba génnee xasiid ak rabbi bi ma yashrahu googu daf ma ko jox ne ma mokkal ko ma mokkal ko laata armée bi di ñëw daarul man naan bi armée bi ñëwee sëriñ Touba ne ma yëkkatil xasiid ak rabbi bi ma yashrahu Muhammad nena na ma jang ko ca kaw melne kuy nodd bi benema ko jàngee jàngaat ko ba muy ñett yoon serigne bi ne ma baxna lepp soti na te yewen na te nako serigne bi waxe won rek nona la amé serigne Muhammad Lamin nena na rabbi bima ma ginak karam ak serigne touba sëriñ ci armée bobu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam won kéman lu jitu ak gané àddunaam ci picc ya nga xamné ño songone armée ba mu bëggé mabbu kaaba ga xëy na lenn rek moo leen wutale mooy ñi bëggoon a màbb kaaba ga ñoom ñëpp lu bon rek leen taxoon a jóg moo tax yàlla fayee leen loolu kem seen yéene fa jaalahum ka asfin makul bu dee armée bii ñëwoon daarul mën naan nag moom ñi ëpp ca ñoom seeni xol sëriñ Tuubaa la àndal waaye nag ginnaaw dañ leen a forcé woon liñ doon def moo tax yàlla muñal leen ba ñu bari ca ñoom dañoo mujj tuub jébbalu ci sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhum ba ci sax ki leen jiite woon moom it mujj na jébbalu ci sëriñ bi